coowal suuf Mansour Boudougar moom moo nekk di continuer nii ba tey. <laughs> coow li day door. Mm. parce que kilifa yi ñoom ñoo ko seetaan. parce que ñooñu ñu fa fekk noonu xam nga tey nee nañu ay liggéeykatu port lañu. au nom de ak ci ban suuf. c'est-à-dire dafa bëri ay question parce que ñi doon ñi taxoon waa Dougar di manifester. Mm-hmm. ba ñu jàpp leen du woon waa port. ay étranger la ñu woon beneen beneen beneen société lan moo tax tey mun ñëwaat foofu est-ce que benn espace bi la wala déet mm-hmm. est-ce que waa Dugar dong ñoo nekk tey ci jamono yi di fipp noonu pour laaj seen suuf mm-hmm. gis nga suuf yi la doxal doxalin bu leer boo xamante ni bii buy génn ci loxo yi nit dañoo nga xam fan la jëm mm-hmm. mënuñoo fekk benn dëkk boo xam ni euh, fukki at ci ginnaaw kenn faalewul dëkk boobu ñu xëy xëy benn suba ñoo ngi leen suuf si moomoo leen ko woon te ñu nekkoon fa di ko bay d'accord mais yow mi ñëw di ko jël itam est-ce que yaa ko moom mais bu fekkee ci turu état la mais teniral compte Sénégalais yi nga xam ne ñoo nga bokk boo demee ci yenn réew yi nga xam dañu sérieux ci wàllu suuf mais benn mètre suuf ñaata lay jaar mais Sénégal dong nga mën na ñëw nekk étranger ñu jox la ay téeméeri téeméeri hectares ngay def lu la neex te tous du la ci fekk mhm. te population bu génn manifester waa jas yi seen manifestation fan yi passé lan la woon ñu def benn annexe yokk dëkk bi tuuti ba doomi dëkk ba mën faa am ay kër ñu leen ko mhm. de de de déclassé yenn ci ay suuf jox ko ay société APIX am lu mu ci jël am ñeneen ñu mu jox ñu exploité yow nga nekk benn benn benn benn nit nekk Sénégalais am nga benn takkatam ndomba tànk ñëw ci ab dëkk di jël suuf nit ñi sang rendu ci ñoom compte mais Dougar tey lañu ko xemmeem Dougar boo musaan génn jëm ñaaju balaa ngay egg si Dakar euh, euh, Dougar jamono yi euh, baara taal di soog a def foofu depom bi mais boobu Dougar ñu bëri xemmeemuñu ko. tey lañ ko soog a xemmeem moo tax état bi nag euh, gis nga ñu ngi sàggane lu doy waar nañu wax ci wàllu suuf si nañu yamale ni ñuy jëlee suuf si ci baykat yi nañu bàyyi ni ñuy bund xataale nit ñi ay suuf. Mhm. yuuxu dina ji fu ñu ko foogewul de. ci ci yuuxu boobule sax Fatou Abdou bu ñu nee bii mooy quatrième fois. ñooñu mhm. ñu leen di fekk seen ay kër di leen di bund xataal te ba tey euh, mënuñu ko saafara. waaw loolu moo lay wan ne déjà am na lu nekk ci suuf xaddi c'est-à-dire mhm. que yoon nga ñëw tojate ay kër. yàq tay oto ba pare di xupp di dem. lu dul visite ki nga xam ne mooy directeur général bu port. Mhm. boo xam ne dafa ñëw def discours dajale tout la population na leen am leen dal alors que ay njaboot ñoom ñoo fa dëkk. ay mhm. famille ñoom ñoo fa dëkk. ñan ñoo nekk ci ginnaaw loolu lan mooy soubassement bi. Mhm. loolu ay laaj la yoo xamante ne également ki nga xamante ne moom moo leen jox cité bi war na cee mën a indi tontu te it Mansour dafa wax lu am solo nga gis benn bërëb boo xamante ne eh, nit ñi peut-être dañu fay dëkk seen loxo jotu seen ginnaaw ñu yaakaar ko pour bay wala ñu yaakaar ko pour seen njaboot nga gis benn société boo xamante ne am na doole. am na xaalis ñëw jënd ko. Mm-hmm. maanaam nga dem géeje waaye dem ca filaawooye gis société boo xam ne dañ koy jox suuf sa ne ko moom gis ñoo xamante ne fa lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ mënuñu am accès yooyu suuf nga dem benn si beneen cité mm-hmm. boo xamante ne également loolu loolu tamit ay problème la mooy suuf si nañuy fexe ba li ñu ci waxoon mu am nañ koy joxe anam goo xamante ne dañ ciy tëddee njaaxaanaay balaa ñu koy joxe ñu jox ko ci anam gu wóor ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo def loolu ñëw di xuppaate ñëw di tojote amul dara lu ko jar cest à nekkuñu si yoon nekkuñu ci yoon ñëw fekk askan wu dëkk fekk njaboot gu dëkk nga ñëw di ko xub ñëw di naan da ngay tojat oto ñëw di lool te boobu ba tey amul kenn koo xamante ne ubbi nga ci l'enquête wala nga wax yi mbir yi lan moo nekk ci suuf ba ñoom ñu am fit fekk njaboot yu toog nekk ci seen cité ñu ñëw di leen bundu xataa ñu leen di sonal mhm. ñu ngi xuppaate Serigne Saliou seen ay suuf la laaj loolu mooy firndeel ni tant jotuñu ko lii dañuy continuer di ko def waaw xam nga bii c'est la quatrième mhm. a dépossédé ci droit foncier je crois que war nañ koy toog di ko waxtaanee ñi nga xamante ne ñoo yenn suuf yi. Mhm. xam nga état bi souvent xam nga droit coutumier dafa am am na place Sénégal surtout concernant le foncier. Mhm. te très souvent ñoom loolu dañ ci duñ duñ ci bàyyi xel dañuy ñëw rek ne état bi moomu suuf si. mais droit coutumier dafa am boo gisee lébu yi fii yëpp lu ci bari droit coutumier la. te mhm. pourtant légitimement ñoom ñoom moom suuf bu fekkente ñoom dañu ci dëkk. fekk waa dëkk ba jël une partie de leur terre jox ko ñoo xam ne ni cosaanowuñ fa parce que ñu ci bëri ay Dakar nañu jógee ñu ñëw jox leen ko mhm. ña nekk ci dëkk ba ñoom sax pour ñu am yenn suuf sax problème la loolu c' est ce qui est en train aujourd'hui à Sindia moom mooy ci ay jasak yooyu yëpp loolu actuellement moo fay am mhm. président Macky Sall moom ci boppam moo waxoon ne foncier bi c' est une bombe waxoon na ko dans dans un conseil des ministres gis nga bombe bi éclaté gul sax parce que population yi nekk au abords de l' aéroport yëpp mhm. ñu ci bëri ils vont être dépossédés de leur terre te nag teguñu ko fenn. Mhm. parce que li xewoon temps ci ginnaaw bay boy révolté wu ñu jàpp leen yóbbu leen ils sont dans leur droit nañ leen respecté bàyyi leen ak alal wala ñu toog ñuy waxtaan ak ñoom. Mhm. mais ni ñu bëgg a ñëwee bu leen dépossédé de leur terre alors que dafa am benn relation boo xam ne ancestrale entre les terres là ak ñoom je crois que loolu quand ñoom war nañ ko xalaataat bu baax sinon bombe boobu ñu bëri du ñu te ça a commencé parce que ñiy toj seen i euh, otoog yooyu. déjà les conséquences commencent. Mhm. te boo deful ndànk bakkan mën na ci wàdd ñaanuñu ko yàlla mu mën na ci am. Ah, dëgg la euh, ñu wax Serigne Saliou ci charte de non violence bi nga xamante ne nekkul ñëpp ñi faree ci ko jëkk longu politique yi ñoom ñoo ko nar a signé ku ci mel ni Ousmane Sonko moom wax na ko sax du signé boobule euh, charte réaction boobule nag njiitu cadre unitaire de l'islam moom li mu xamle moo di bett ko waaye ñoom lenn képp moom moo leen tax a jóg équité ak euh, équilibre ci longu politique gi Cheikh Ahmed Tidiane Sirax ci doole di ñoom seen rôle moo di ñu def ay propositions politique nag ñoom ñooy xool nan la ñuy fexee ba contenu bi dara nekk ca biir ci euh, violence bi sax la ñuy wax ba tey ndaxte bu dul violence physique dañuy nemmeeku itam ay kàddu yu ñagas euh, ci euh, longu politique yi mu mel ni moom mooy wujj fi mu ne carte électeur yi way politique yi ku ci nekk di fexe ba di jéem napp sa morom di ko jéem a tiital muy ay intimidation yu ñuy jaarale ci ay kàddu wala sax ay jëf ñu koy gën di nemmeeku fan yi waaye nag ci taarixu longu politique fii ci réew Sénégal du guléet ñuy nemmeeku wàllu violence ci biir ñu ànd ceeg si moo fay. Ousmane Sonko li mu wax dafa leer njiitu Pastef ne du signé benn yoon charte de non violence bi nga xam ne waa cadre unitaire de l'islam au Sénégal ñoo koy proposé moom njiitu Pastef dem sax bay digle dóor fayu di ci joxoon baaraamu tuuma nguur gi ne ñoom ñoo waral fitna gi li Ousmane Sonko wax fàttali kàdduy maître Abdoulaye Wade ca jamono ja nekk opposan di wax ndaw ñi ñu gànnaayoo seenu vélo ngir fayantoo ak police bu ñu leen dooree liif Macky Sall tamit ba muy doon opposant sàkk na askan wi génn mu tuddee ko résistance populaire ngir bañ li mu jàppoon ne nguuru Abdoulaye Wade loolu la bëggoon def maanaam tëj gémmiñu askan wi opposition bi di woote résistance ca genn wet nguur gi ca geneen wet ak ay contre manifestation fitna ci ko équilibre de la terreur yàgg na ci bu Sénégal ndax day tekki ne faaw sa kàddu ñagas wala nga mën a dóor wala fayu ngir bokk ci politique bu Sénégal ndax fitna googu dafa doon doxalin bu bees ci biir politique bi politicien bu Sénégal ndax dafa mujjee ne nitu fitna charte bii nga xam ne cadre unitaire de l'islam au Sénégal de proposé na ko acteur politique yi ànd ci am déet fàttaliwaat na ñëpp ne dañoo war xoolaat ni ni ñu toogee ci biir réew mi. Euh, Fatou Abdou nan nga gisee tey taxawaay bi Ousmane Sonko taxawee ci charte de non violence. waaw euh, loo xam ne la mën nañu wax ne li mu li mu xalaat la wax c'est-à-dire que euh, dafa wax li nga xamante ne moom moo nekk ci ñoom. Mhm. parce que charte bi fii la ñu ko commenté woon que lu baax la. Mhm. toll nañ tey ci Sénégal foo xamante ne ñoom ñu war nañu jël responsabilité ngir jàmm dellu si parce que élection locale yi Sénégal mosu ko dund. Mhm. élection locale yoo xamante ne ba ñuy sax campagne boobu waxuñu sax waxu investiture la gis ne moom son cortège Ousmane Sonko dañu ko attaqué ca Ziguinchor. Mhm. waa kër Doudou taxaw mu am jaamaarloo bu metti gis nañu tournée économique du président de la République mu am ay militants yoo xamante ne dañ leen doon attaqué gis nañu fi coalition gëm sa bopp di dem Tibetan.